si technopole bi euh, benn choc bu métti moo fi am euh, Njaga la ak benn moto waaye moto bi euh, Njaga Njaay bi dafa saaraani ci kaw moto bi moto bi ki doon dawal dee na ak ku jigéen ki nga xam si ni moom it tamit dañ ko supporté woon faatu nañ sur le champ waaw fii si teg technopole bi côté arena arène nationale waaw fii la amee jërëjëf ñu leen ñaan yàlla na leen yàlla xaari àjjana jërëjëf